bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm bi olof njaay naan nangu sak njuumte dina yombal sak njéggal la tayef taxul woon muy wax ñu ànd ak yéen ci nettali gu tukkee ci làmmiñu ndayi mbili di faata xale bu jigéen bi lee di wuyoo ci turu mariama ndoli te ka ko faat du kenn ku dul yaayam ji di awa juuf lu bees ci dossier xale bu jigéen bi di mariama ndoli amoon lu tollook fukk ak juróom ñeenti at nday ja faat ko ca tàmbali ga bi ñuy joxoñ nday ja baaraamu lay wa mu joxe woon mooy ne li mu def tayu ko dafa mel ni dafa am lu ko dugg ndax bi muy jëf-jëf ju ni mel àndul woon ak sagoom waaye ca mujjantal ga ba muy jàkkaarloo ak woyi lattekat ya mujj na feeñal ni moom moo faat doom ji ci coobare bakkanam moom Awa Diouf nag li ko yoon di toppee mooy faat gi mu faat doomam bu jigéen bi amoon ci lu tollook fukki ak juróom-ñeenti at te nag ëmboon ci lu dul sëy bu ñu sukkandikoo ci journal Libération mi xëy fësal procès verbalu yaayu xale bu jigéen bi ma nga cay nettali waajtaayam ak namu jaar ba ci anam gi nga xamante ne moom la faatee doomam jilee di Mariama Ndoli ci ay kàddoom yaay ja nettali ne dama bàyyi ba Mariama dem di wuti ndox ngir mën a dem sangu ji ma dal di profito def ko la ma bëggoon def dama ko bàyyi ba mu sëgg dugal loxoom ca ndox ma di seet ndax tàng nam déet ca laa ko xoj ca biir wanak wa ba mu sedd guy subhanallah la ilaha illa ana xolu yërmande ci doom xale bu jigéen bi li dafa mujj ñàkk bakkanam ci anam gu doy waar googu ndax mënatul woon noyyi mbir mi nag ma nga xewee ca Bambay ci village yu Mbafaye bokk ci commune u Refane ginnaaw ñetti fan yoo xamante ne way takk dari ña ngi ko doon wër ci lañ ko mujj teg loxo foofu le ca Saly maanaam yaay ji wat waarootina yàgg naa dégg ñuy wax naan nday du mere doom ja mukk ba yéen a kob dee wala ba tey way jur bu sañoon mooy jiitu doomam ci biir bàmmeel waaye bi la yoon moom nday jii di Awa Diouf wor na sutura ak yërmande yaay ci doomam fental boppam ab woy woo xamante ne du fay ci dunya Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal